muñ déglu son bi. waaw déglu ma xoolal sa turu kaana yooyu na nga téere tudduma moño hmm. amur laa tudd. booy ma lay sagal li la tuddee ol moño ndax ol ak moño nu mu àndee booy. ma lay sagal li la tuddoon moño ngay baani baani. booy man kaana laa yow sax man samay écouteur xaw ma la laa la koy jox man samay écouteur alkalaan écouteur yi lay tax bokkuma ak yow sa écouteur 200 francs yooyu noonu. marché caal sa téléphone boobu di palanke. ñun booy ay iPhone la ñuy yore booy iPhone bi gulek. ñëwagul lekk salut Bader Gana. sama waa kër yi. oui. mbaa a ngi ci jàmm. ñu ci jàmm nag. kii du Amadou. man la kay. waaye li mu doon. eh yow li lan la nit. eh eh eh Omar eh kii li muy def nii yow. yow li lan la. yow nga yow. yaay mën ngay dóor ah. dama nga da fecc mel ne ku wóoru. yaa xam ma amee dimbali ma de yow fi Fatou. maa ci kër gi lan man li ma la bàyyi ci kër gi. xaw ma ko fii de boo fi la yow rey laa lay def yow. maa ngi ni doog a egg si yow Fatou ñi ma fekk leen kii xaw dafa woor xaw ma lu mu def nekk fi di fecc di teg. gis nga bu wooree bu teyee ba ma waxee waxu naan dama lay rey. kii de raw naan da koy def. yow Fatou nekkee si kër gi moom nii rek la fi nekkee. yow noppi rek yow doom yow diglu rek te wéeru yaa ngi dégg yow moom wax dëgg yàlla jàmm ak salaam rek ngay am. may la ni nga yere sa doom moo tax mu mel noonu. kii ni nga ko yere noonu la mel. sama tur bi na nga ko bàyyi. may la ni nga ko yere noonu rek la mel. fii de doo fi dogee. fii dama lay rey. fii de boo fi dogee ma rey la yow rey laa lay def yow. kii du doon dog da koy def nga war doo ko dogee ma rey la. loolu yëpp sa faute la. man moo doon mil bi. mais Fatou lii laa lay jëlee kër ma sa ko waxal ma sama kër. kii de mi ngi def ko war waaye kii dafa tey ba yaa ko yare noonu gis nga boo fi dogee dama lay rey yow dog yàlla xam ne nii nga koy woore yow Fatou ma jëlee la kër ma saa pour boo ñëwee xoolal ma sama kër nga ñëw di ma yàq sama loolu nga may toog yow de xoolal fii boo fi naanee ndox te soo paree nga ba set nga wati sa bopp faa toog lépp laa ci yemale kii de may na fii doo fi naanee jàngal nga toog yi fii eh, fii doo fi naanee ci biir laa la wax ma jëm eh xoolal xam nga sax yow na nga dem nga sangu nga watu ko parce que man duma ko joobee benn doom. loo loo loo. yow yaay kan yow. loo amal li ma la may dafa ëpp de. day eh, am demal. Thank you.